أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق منبع الأنوار جمجمة العوالم سيد الوجود عالم الشهود صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki baaxoo sunu kër gi sunu gaal 24 seen mbokk sat Habib Socé wala ñu leen ziyaara di leen baalu xàq ci ramadan bi ñu dugg di ñaan yàlla bool ñu baal nangu ñu jéggal ñu jéggal mboolem jullit waaye ñaan yàlla commencé nañ yàlla nañu yeggali ndax am nañu commencé duñu yeggali am nañu xam ne ñoo ngi doon séentu avant yegg si dem nañu gis nga loolu mooy àdduna toujours jàppal ne ku nekk mën na dem kon nag commencé nañ yàlla nañ yàlla may ni ñu commencé ñu yeggali sa jàmm ñun ñëpp euh, te yàlla nangul ñu nangul suñuy waajur ak mboolem jullit mbokk yi ñu ngi nu wax di ziar kilifa diine kilifa aada yëpp ñu ngi leen ziar bu baax alhamdulilah di ñaan Sénégal gii nga xam mooy suñu gaal nga xam mënuñ ko génn ñi ngi ñaan yàlla defal ñu fi jàmm ju sax dàkk yàlla sàmmal ñu réew mi xaaral ñu réew mi waaye xaar ñooñ réew mi bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Ramadan mbokk yi gannaaw loolu ñëw nag suñu li nga xam mooy naafila bës bi Ramadan ku ko xam xam li nekk ci biir euh, euh, ci ay na nawaafil yu xam ne lépp njariñ la waaw lépp njariñ la ñu leen di andil nag naafila yoo xam ne nekk naafila plus maanaam naafila bi day ànd ak benn nasiha boo xam ne yow mi koy déglu. da nga ci amee sa njariñ bu xam ni danga nga ci mën a yokkoo ci sa wàllu xam-xam sa wàllu diini waaye da ci mën a amee ay conseil boo tolloon ci ay situation da nga ci mën a amee tamit euh, euh, ay solution ci lépp lu xam ne rek euh, mu ngi la fekk nga nekk ca loola incha allahu taala ñu toll ci troisième nuit mu nekk troisième guddi troisième guddi ci ramadan ñi war ca naafile ci guddi ga kenn ku nekk war a xam li nga fa war a naafile lan la li ngay naafile ci guddi googu lan la ñi fa seen ñëw ci incha allahu taala waaye ñu ngi nuyu baax di ziara nag ñi nga xam ñoo baaxoo kër gi di actu diine actu diine bi ñu am fi muy émission boobu ñu ngi leen ziar bu baax macha allah euh, naafila bi juróom-benn la naafila bés bi six rakka la muy troisième nuit six rakka yi benn bu nekk yaa ngi ciy jàng lan yaa ngi ciy jàng faatihatul kitab lan mooy faatiha muy alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani ba ci wala daalin amin dégg nga loolu mooy fatiha soo noppee ci fatiha boobu yaa ngi teg saar bi ñuy wax inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri ba saar bi jeex nga jàng ko quatre fois moom inna anzalnaahu soo paree nga jàng ko quatre fois qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun nga jàng ko quatre fois dégg nga kon naafila bi daal lii la six rakk la rakk bu nekk yaa ngi jàng fatiha ak benn ak ak ñeenti inna anzalna fi laylatil qadri ak ñeenti qul ya ayyul soo paree ci loolu nga sëlmal booba noonu rek mooy mooy mooy li nga xam mooy naafila troisième bi incha allahu taala léegi nag yow mi nga xam yaa ngi topp gannaaw boo xamee li nga war a ci troisième nuit point mu nekk lan nasiha bés bi ndénkaane koor bi mooy asabru asabru maanaam muñ koor mooy loo xam ne mbokk yi ku muñul mënoo ko koor mooy loo xam ne ku muñul mënoo ko ndax yàlla subhana moo waxoon ne man ñi mu ñooña laa àndal nga xam ne koor jot na nga muñ suba ba ngoon jot ñëpp euh, ànd xiif nga itam nga ànd xiif nga gis sa morom boo xam ne mënoon na war woor mu ngi lekk di naan nga muñ loolu yépp yow ne yàlla yaa ma sant naa ko def kon mbokk yi muñ mooy suñu li nga xam mooy euh, euh, nasiha bés bi waaye nga ma bañ mel comme am julli sekki rek nga xam ni moom day woor ba midi rek mu xam xam-xam lu waaw gaa yépp ne waaw xam na mais lan la ciy bëgg ñu ñëw sotti ko ndox mu fexe ba ñam ci ay góox day san <laughs> waaw moom julli sekk fexe ba ñam ci ay góox mbokk yi loolu du yëfu gor nit ku gore mooy ki nga xam daaw ba ren yaa ngi lekk di naan mu des benn weer yàlla na la waral nga war koo in uridu illa al islah mastaatu wa ma tawfiq illa billahi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu suba ci heure bi incha allahu ak seen naafila quatrième jour ramadan